yi kat liñ tàggoonteel métti na lool ñu bari ñu ngi gàddu ay bor yu dul jeex kenn ku nekk dem nga ba peinture sa boulangerie sax mënatoo ko te état bi xam na ko ndax protocole bi nga xam ne moom la njëkk na def ak ñoom ñaari weer la diire woon dem nañ ba xam ni mburu mi dafa war a yokk te nanguwuñ ko yokk xam nañ ni fariñ beet 5000 francs bi ñu xëy teg ko ci boulangerie yi attanuñu ko te mënuñu koo teggi kon nag ñuy wax ñëpp rek ni leen. talaata ci suba ñi bañ a xaar ci nun mburu ak alarba ci suba bu jaree yokkit dina koy dinañ ko yokk kan ñu doon liggéey di jaay mburu fanweer mu delloo ko fa wala boog mu ji jox nu prix boo nga xam ne cent soixante-quinze la ci baguette bi ñu jaayee cent cinquante bu ko defee bu lim ñu jaayee fari ñu mën a continuer jëm ci loolu bi ko ñetteel nag mooy aldukalte bi nga xam ni moom la ministère de commerce nekke ak i service am ci kaw boulangerie di encaissé ay cent cinquante mille ak i deux cent mille yooyu moom na ko teg ci suuf te ministère de commerce bii ci boppam nanu ko fi jëlee andil noo keneen parce que moom taxawul pour régler problème mu boulangerie yi.